asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soppe yi waa daara ji dellusiwaat nañu suñu euh, émission fer iji ñu ngi ci xarfu daalun tabaarakallahu kii mooy xarfu daalun da di du add dan din da di du harf dalun dalun da ci buñ ko masé fatha di kasra du bamma ad sukun dan fathataini din kasrataini dun dammataini da bil maddi bil alif xëcc ak alif daa di ñu xëcc ko ak yaa du ñu xëcc ko ak waaw tabaarakallaahu kon xarfu daal la ngoog allah ba ñëwaat ak jàmm jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa